أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ginnaaw bu nu tàmbalee ci turu yàlla tabaraka wa taala ñu ngi ñaanal suñu yonentu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal te musal ko ginnaaw loolu ba tey ñu ngi ak yéen ci téere bi tudd kitaabu tawxid tolloon ci baabun laa yusbahu lillahi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah ñoo ngi tolloon ci buntëb kenn du rendil kudul yàlla kenn du rendil kudul yàlla ci barab bu ñuy jaamoo yàlla kenn du rendil yàlla ci barab bu ñuy bokkaale barab bu ñu dul jaamoo yàlla képp koo xam ne danga nësër jaamu yàlla jaamu yàlla bi fexeel ba bul ko def ci barab bu ñuy moyee yàlla képp koo xam ne da nga bëgg jaamu yàlla fexeel jaamu yàlla boobu ngay def bul ko def ci barab boo xam ne dañ fay mooy yàlla subhanahu wa taala suñu dars tey day leeral jullit bi bëgg xam-xam alxikma min an nahyi an zabhi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah sunu darsu tey day leeralal jullit bi tere gi ban sekkere ban mbir moo nekk ci tere gi nga xam ne sharia tere na ko ñu rendil yàlla ci barab bu ñuy bokkaalee ñaareel bi mooy day mooy tandikuloo jullit bi pour mu nuru mu nuroo ak bokkaalekat yi maadaama fee dañ fay bokkaale wala fee dañ fay mooy yàlla bul fa dem bul fa wuy ji bul fa def sa jaamu yàlla ñetteel ci li ngay jële tey ci dars bi mooy dalay ballalal hukmu zabhi lillahi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah bokk na tey ci jullit bi lu muy jàng ci dars bi mooy dalay leeralal lan mooy atte ki rendi ci barab boo xam ne duñ fa jaamu yàlla su ñëwee ci hadis bi ñuy jàngal dars bi tey dinañ fekk sahaaba bu tudd sabit ibnu dahak muy sahaabiyun mashur sahaaba bu siiw la woon abu qalaada jële na ci moom ak ñeneen ñu dul moom moom sahaaba bi mu ngi faatu sanata arbaa wa sittin atum juróom benn fukk ak ñeent ci gàddaayu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne jëlee nañ ci saabit ibnu dahak radiyallahu anhu qaala nazara rajulun an yanhara ibilan bi buuna fa saala annabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala hal kaana fiiha wasanun min awsaani aljahiliya yucbad qaalu la qaala annabiyu sala allahu alayhi wa sallam fa hal kaana fiiha ciidun min acyaadihim qaalu la fa qaala alrasul sala allahu alayhi wa sallam awfi binadrika fa innahu la wafaa linazrin fi macsiyati illahi wala fi ma la yamliku ibnu adam rawahu abu daawuda wa isnaaduhu ala sartihima mbokk yi sahaaba bi tudd saabit nee na benn waay nazara rajulun benn waay dafa nëzër lan mooy nëzër mooy warlul sa kaw loo xam ne waru la woon ilzaamu almukallaf nafsahu bi cheyin gayru waajibin alayhi loolu mooy nazar mooy mu kàllaf bi mu gàll ci loosam loo xam ne du woon woon du woon farata ci moom loolu mooy nazar comme nga ni sama soxna dafa feebar su wéree dinaa woor ñetti fan dafa am ay këyit yu may sàkku këyit yu ma soxla këyit yi daf ma yàlla dimbalee ba ma jot ko dinaa julli fukki ràkk wala dinaa saraxe nangam ci xaalis wala dinaa woor nangam ci fan loolu moom mooy nëzër mooy nga teg sa kaw loo xam ne du woon farata ci yow loolu nag saa yu ko yàlla defee loolu nga waxoon ne moom ngay def léegi farata la ci yow fal force nga def ko boo ko deful da ngay am bakkaar xam ngeen jàng ngeen ci alquran sunu borom subhanahu wa taala di jàngale ci suratul insaan mu ne yuufuna bin nazr wa yaxaafuna yowman kaana sarruhu mustatir aaya bi mu ngi wàcc imaam ali ak fatima soxnaam xuseynu moo feebaroon ñu ne ñun de ñu ngi nësëral yàlla xale bi bu wéree dinañ woor ñetti fan xale bi wér ñu woor ñetti fan waaye seen koor koor gu metti la woon dañoo woor ba ngoon bëgg a dog benn jaam ñëw ñu jox ko ndogu bi continuer ñu wooraat deuxième jour bi ba ngoon miskin ñëw ñu jox ko ñu wooraat ba ngoon kan moo ñëw jirim ñu jox ko ndogu bi après ñu xam loolu la yàlla di wax subhanahu wa taala wa yutimuuna taama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asiran bañ leen di jox lekk gi ñu nga naan leen innama nutimukum li wajhillah la nuridu minkum jazaan wala shukura kon nësër mooy nga teg sa kaw loo xam ne waru la woon waaye dafa am loo bëgg di ko ñaan yàlla moo tax nga wax loolu misaal nga ni man de maa ngi ut liggéey bu ma yàlla mayee liggéey sama premier salaire dama koy saraxe kon premier salaire bi amoo droit lekk ci fistin fistin ndax yaa ne woon da nga koy saraxe lépp da nga ko war a saraxe loolu mooy nëzër wala maa ngi tukki su ma yàlla mayee ma yegg dinaa woor ñetti fan sant yàlla loolu moom mooy nëzër soo demee ba yegg ñetti fan yooyu léegi farata la ci yow benn waay nag dafa nëzër lan la nëzër an yanhara ibilan bi buuna mu ne damay rey ay gëléem ci benn place bu tudd buuna place boobu al imaamul bagawi nee na mawdiun fi asfali makka benn place la boo xam ne mu ngi ci suufu makka boo rombee makka ci suufam fala place boobu nekk mu ngi tudd buuna duna yalam lam eggul eggagul yalam lam yalam lam mooy fi ñuy maam fi ñuy fi ñuy yéene ak fi ñuy armalee ya buuna nag soo wàccee makka tuuti eggagoo yalam lam foofu la buuna nekk benn waay nag dafa nësër mu ne yonent bi damaa bëgg a dem ba place boobu ma rey fa ay gëléem yeneen boroom xam-xam yi ku mel ne abu suleyman mu ne buuna hadbatun min warai yanba mu ne benn jànj la bu nekk ci ginnaaw ndox ndox moo xam ne day ball di walangaan mu ne foofu mooy buuna kon boroom xam-xam yi wuute nañ buuna fan la ne lan lan la waaye wuute wuñu ne waa ji foofu la waxoon dafay dem rey fa gëléem yi kon place bi existé na mais lan la loolu la boroom xam-xam yi wuute waa ji bi mu ne yonent bi damaa bëgg a dem ba ci barab boobu ma rey fa ay gëléem fa saalahu nabi sallallahu alayhi wa sallam yonent daf ko laaj mu ne ko hal kaana fiha wasanun min awsaanil jahiliya yubat ndax barab boobu amul woon xërëm bu ñu doon jaamu ca jamono ceddo ga si ngeen ndax foofu nga bëgg a dem rey fay gëléem hal kaana fiha wasanun ndax foofu dafa amoon xërëm bu fa nekk min awsaanil jahiliya ci xërëmu ceddo ya ca jamono yooyu yubat ñu koy jaamu mbaa amu fa woon loolu fa qaalu laa gaa yi ne ko déedéet kon su fekkoon ne dañ fay dañ fa doon amoon xërëm ñu fay ñu ko fay jaamu kon lu ko yonente bi di wax mukk mukk mukk qaala moom yonente bi mu ne waaji ba tey fa hal kaana fiha iidun min ayaadi ljahiliya min ayaadihim ndax encore foofu daawuñ fa daje di fa feetu ci san feet ya ñoom qaalu la ñu ne ko déedéet fa qaala rasul yonente bi ne ko aw fi bi nazrika mottalil sa nazir kon demal nga jël ay gëléem nga rendi ko ñaari question la ko yonent bi laaj question bu njëkk bi mooy ndax barab ba daawuñ fa jaamu xërëm ndax xërëm nekk fa woon ñu koy jaamu ñaareel bi mu ne ko ndax daawuñu fa daje organi organiser fa ay feet ca seeni feet ya ñoom ca seen jamono ñaar yépp ñu dàq ko ne ko déedéet lan la wax mu ne waa ji aw fi nazaraka demal nga mottali sa nazar aw fi bi nazrika demal nga mottali li nga nazaroon laa wafaa li nazrin fi maasiyatillah kenn di mottali nazar goo xam ne danga koo yéene ci mooy yàlla xale bu jigéen bi de bu ma ko yàlla yombalalee dinaa mooy ak moom yàlla xam nga loolu nazar la mais loolu kenn du ko def bu ma yàlla maye alal de dinaa tabax benn baar boo xam ne loolu doo ko tabax bu la ko yàlla maye bu ma yàlla maye nangam dinaa def lu xaraam loolu kenn du ko def kenn du def loolu kon mbokk yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li muy tere waa ji mooy nëzër ci place boo xam ne dañ fay mooy yàlla wala dañ fay daje dañ fa doon daje di fa feetu ca feetu ceddo ya bu fekkee nag waa ji léegi nësëram ci lu baax la ko teg mën na ko def waaye bu fekkee nësëram baaxul wala fi mu ko bëgg a def baaxul wala fi mu yéenee dem baaxul amul droit dem fa léegi nag comme ñaar yooyu yëpp amul yonent bi laaj na ko ba amul moo tax mu ne ko mottalil sa yéene sa nësër maa ngi la yëgal ni laa wafaa kenn du mottal li nazarin ci nazar goo xam ne fii maasiyatillahi ci mooy yàlla moo fa nekk tukki gis nga boroom xam-xam yi dañuy wax ne bu fekkee ne da ngay tukki te da ngay mooy yàlla yow amoo droit amoo droit amoo droit wàññi julli amoo droit tiim fal force da ngay ut ndox même bu ndox ba amul woon ci dëkk ba di nga wuti ndox jàpp soo tiimee julli sa julli wérul lu tax lan lañ la bëgg a tere mooy mooy yàlla gi lañ la bëgg a tere tey nag nga gis nit ñi dañuy nëzër nëzëru mooy yàlla dañuy tukki tukki mooy yàlla di nëzër nëzëru mooy yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne waa ji amoo droit mukk gëlëm yi nga bëgg a rey ngir yàlla nga koy rey fu ñu doon bokkaale wala nga koy rey fu ñu leen dajaloo di mooy yàlla bu fekkee loolu amul mottalil sa nëzër bu fekkente ne maa ngi la yëgal ne kenn du nëzër mooy yàlla wala fii ma laa yamliku ibnu adam beneen bi mooy yonent bi ne waa ji bul fekk lu yàlla moom nga koy jox nit bul fekk lu yàlla moom nga koy jox nit wala fii ma laa yamliku ibnu adam bul fekk lu yàlla moom mukk nga koy jox nit nit dafa am lu moom yàlla am lu moom hadis bi mbokk yi bu ñëwee ci anasir yi éléments yi danañ fekk tomb bu njëkk mooy an nah yu dañ ñoo tere ani zabhi rendi lillaahi rendil yàlla bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah ci barab boo xam ne dañ fay rendil keneen ku dul yàlla gis nga buñ doon buñ doon xerewlu di déglu bu baax am dégg danañ gis ne am na ay xew-xew yuy xew ci Sénégal lekk ci xaraam na ndax rendi luñ ko ngir yàlla lépp loo xam dañ ko rendi te rendi luñ ko yàlla kenn amul droit lekk ci parce que dafa xaraam bokkaale la parce que bañ koy rendi yàlla taxul moo tax gis nga yonent bi bëgg mbir mi tegu nekk ngir yàlla kese moo tax mu laaj waa ji moo tax mu laaj waa ji ñaata yoon ngay gis fi ay xar yu ñuy rendi ci ay garab yenn saa yi nga toog sa kër rek sa benn dëkkandoo boo xam ne da ngay dégg sax ñuy wax ne kii ab njabarkat la mu yónnee la ndawal nga jël lekk waroo ko lekk parce que xam nga ne kii njabarkat la xërëm yi lay rayal surtout nag koo xam ne dafa dëkk ci koñ bi nit ñi xamee ko loolu loolu kenn amul droit mu yónnee la lekk nga lekk ko parce que li ñu rendi rendi luñ ko yàlla dañuy rendi deret bi dékk ko sange ko waa ji feebar wala ñu jël sarax yàpp bi daal di koy saraxe loolu baaxul kenn warul lekk yàpp boobu beneen bi mooy xar mi bu ñu ko diree ba ci guy gi rendi ko jël deret bi këpp ci guy gi xar moom araam naa lekk wala ñu rendi ko ci tuur yi wala ñu rendi ko ci bàmmeel yi wala ñu rendi ko ci xabru yi kuy moomu nag moobu gëleem googu xar moomu araam naa lekk kenn waru ko lekk même bu doon ginaar araam naa lekk parce que rendu luñ ko ngir yàlla sunu borom sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi fàtt mu ngi fàttali ci hadis bi mu ne anna rajulan benn waaye ngi ni boo xam ne dafa nësër ci benn place boo xam ne ñu ngi koy tuddee buuna waaye yonent bi lu mu def mooy mu laaj waa ji nësëram bii mu segg mbir mi ba mu set moom yonent bi mu ne ko ndax place boobu amul woon xërëm bu fa nekkoon ca démb nit ñi dafa daje di jaamu xërëm bi su boobaa bu fekkente ne loolu am na tey yow munoo dem di fa rey gëléem yi munoo ko lu tax maa yonent bi day ragal ci xeet wi ñu dugg ci bokkaale ñu dugg ci moo tax lépp luy indi bokkaale yonent bi dafa tëj bunt boobu moo tax sax muy tere naan nit ñi naan leen bu leen wax yàlla ak ak benn waaye fekk na yonent bi toog mu ne ko yàlla ak yow mu ne ko ajaaltali lillahi niddan da nga ma bëgg a def moroomu yàlla man da nga ma bëgg a booleeg yàlla waxal bu neexee yàlla kese man bu ma ci dugal di tere loolu yonent bi da koy tere bu neexee yàlla ak fii nag lan la ñuy wax waxuma sax ñu ne ak yonent bi waaye bu neexee yàlla ak diw kon dafa mel ne day neex yàlla neex diw moomu mbir mi doog a am te lu mu mën a am ci àdduna yàlla rek lay neex mu am amul keneen ku muy neex waaw ku doon ut loo xam ne moo lay neex muy am kon xul law kuntu aalamu alxayba lastaksartu min alxayri wa ma massani suu yonent bi nee na bu fekkoon ne man xam naa suba luy xew kon lu baax rek laay am kon lu bon du ma laal su ma xamoon suba bu ma xëyee am na lu bon lu may laal lu ma nar a dal dinaa xëy du ma dem damay toog ah kon yonent bi nee na bu ma xamoon ëllëg luy xew kon lu baax rek laay am lu bon du ma laal sallallahu alayhi wa sallam ixwaan yi yonent bi laaj na waa ji ne ko ndax foofu dañ fa doon rey mu ne déedéet gars yi ne ko déedéet mu ne ndax dañ fa daan daje di fa organiser ay feet iid min ayaadihim déedéet fa lamma alima annabi sallallahu alayhi wa sallam bi xuluwi hada almakan min tilka almuhaadir amarahu bilwafaai bi nazrihi ba yonent bi xamee ne yii ñuy tere amul ca barab ba lan la ko wax demal la nga nësëroon nga mottali ko am na ñu naan nësër jaaduwul ci diine waaye ñooñu dañoo xóoduwul ci texte yi ñu ne ndax kenn warul poñee yàlla naan ko boo ma defalee ma defal la déedéet nësër du poñee yàlla nësër nësër xeetu jaamu yàlla la booy def booy sàkku ci yàlla ngir mu defal la dara su la defaree nga sante ko dara loolu la loolu mooy nësër ndax saxaaba yi dañ ko doon def yonent bi saa sallam moo ko santaane moo ko jàngale ci diini bal sax yàlla daf ko wax ci alquran imam ali defoon ko ak fatima kon ku ko def dara nekk ci su ma yàlla mayee dara ma def dara am na ndaw soo xam ne xam nga lu mu yéene woon bis bu yonent bi gañee guerre bi dinaa indi sama tabala ba ci kanamu yonent bi ma rëkk ko ba mu tàng jër yonent bi dem gañe xeex bi mu ñëw ko yoon yoon ne ko tëggal mu indi ndënd bi tëgg ba yaramam tàng dem ñibbi parce que loolu la yéene woon te li may wax xadis bu wér la kon nëzër fii lañ ko fekk diine moo ko jàngale waaye nag kañ lañ koy def su fekkee da ngaa yéene lu baax mais bis boo nëzëree lu xaraam amoo droit def ko waaw amoon droit nëzër lu xaraam loolu dañ la ko tere sooy nëzër da ngay nëzër lu baax yonent ba mu laajee waa ji ne fa mu bëgg a rey gëléemam yi kenn du fa bokkaale kenn musu faa bokkaale kenn musu faa dajaloo yonent bi daal di koy digal ne ko mottalil sa nëzër wa fi haasi wa fi haasa nekk na ci li mbokk yi dalaalatun ala anna zabha lillahi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah min wasaili shirki mbokk yi lii nii hadis bi daf ñuy jàngal ne bokk na ci dalil yu ñuy tegtaloo ne képp ku rendil yàlla ci place bu ñuy bokkaale yow ubbi nga buntu bokkaale képp ku dem ci barab bu ñuy bokkaale nga bëgg faa def jaamu yàlla yow ubbi nga buntu bokkaale ndax yow yaa bëgg a woon nit ñi ne fii mën nañ fee jaamu yàlla te place boobu kenn amu fa kenn war fa jaamu yàlla place bu ñuy bokkaale place bu ñuy moyee yàlla kenn waru fa jaamu yàlla képp ku ko def yow yaa ubbi buntu bokkaale parce que nit ñi danañ la gis daal ne diw def na ko fi daal di ñëw def ko te loolu min wasaili shirk wa alal muslim comme war na jullit al bu'du mu sori an zalika ci mbir yii jullit war naa sori mbir yii limaza saddan li baabi shirk ngir tëj buntu bokkaale ngir tëj buntu bokkaale mu waraat ab jullit mu bañ a nuru nuru lu bokkaalekat yi ndax bokkaalekat yi ñoom ñooy ñëw li ñu war a defal yàlla ñu koy defal seeni xërëm wala ñu koy defal seeni wala ñu koy defal seeni jullit moom warul nuru ak bokkaalekat loolu moo tax yonent bi tere waa ji ne ko bul fa bu fekkee ne loolu am na fa bul ko fa def pour nga bañ a nuru nurul ak ñoom ndax man shabbaha bi qawmin fa huwa minhum ku nuru nurul ay nit rek yaa ak ñoom yéen a yem ñaareel yi ci élément bi mooy alxikma min tahrimi zabxi lillahi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah lan mooy xikma lan mooy xereñ lan moo tax islaam tere araamal rendil yàlla ci place bu ñu rendil keneen ku dul yàlla lu tax islaam araamal ko ñeenti mbir moo tax bu njëkk mooy adamu musaha musaabahatil mushrikin ndax ñu bañ a nuru ak yéeféer yi gis ngeen kon jullit warul fexe dem di nuroog bokkaalekat yi dafa war a moytandiku bokkaalekat nuroo ak ñoom ci lépp lu mu mën a doon nag rawatina jaamu yàlla moo tax gis nga yonent bi saa salaam ba mu tabaxee jàkka ji gaa yi ne ko nañ ut béjjén lan la wax kon dañuy nuroog yahuud yi ñu ne nañ ut cloche ne dañuy nuroog nasaraan yi gis nga mu ñëw ci sikkim mu ne wuute leen ak yahuud yi ak nasaraan yi ñu ne ko naka mu ne wàññi leen mustaas yi bàyyi sikkim yi ndax yahuud yi ñoom dañuy bàyyi ñaar yëpp dañuy bàyyi mustaas bi bàyyi sikkim bi nasaraan yi nag dañuy wat sikkim bàyyi mustaas yéen wàññi leen bii ngeen wat bàyyi bii gis nga pour bu ñu wañee nuroog ñoom mu ñëw fekk leen ñuy seetu samedi ak dimanche mu indi aljuma mu ñëw fekk leen ñuy feetu mu indil ñu korite ak tabaski mu ñëw fekk leen ñuy war asura benn fan moom mu ñëw def ko ñaari fan war asura ak tasua tasua ak asura mu ñëw fekk leen seeni soxna bu ñu gisee baax du ñu lekkandoog ñoom du ñu fanaanee ak ñoom mu ñëw ne isnau kulla shay'in illa al jimaa def leen lépp ba mu des sëy ngay fanaanoog sa soxna di laal yaramam ba mu des jumbaxam ba ci óomam ci kanam ak ci ginnaaw mu ñëw fekk leen ñuy jublu masjidul aqsa moom mu bàyyi ko fa di jublu masjidul haram moo tax yenente bi nasaraan yeeg yahudi dañoo jékki-jékki rek ñu ne waa ji lu ko dal kii est-ce que wér na kii moom lépp lu mu gis ñun ñuy def rek mu indi leneen def leneen mu ne loolu la ma yàlla yónnee pour ma wuuteeg yéen du ma nuroog yéen mukk kon jullit warul nuroog bokkaalekat warul nuroog yéeféer tey bu ñu toogee fii di toppandoo yéeféer yi dañoo wàcc suñu ànd ci suñu wàllu jaamu yàlla ak suñu lépp dañoo wàcc suñu yoon waaye yonent bi yàlla yónni woon moom mën nañ fee toog di leen limal ay ay yi yonent bi wuuteeg yéeféer loolu moo tax sax mu digle ñuy woor samedi ak dimanche pour bañ koo feetu kon bu njëkk ci xikma yi mooy ñu bañ a nuru yéeféer yi bokkaalekat yi ndax yonent bi nee na man tashabbaha bi qawmin fa huwa minhum képp ku nuru nurul ay nit yaa ak ñoom a yem ñaareel bi adamu taazimi hadha al makaan ñu bañ a màggal barab boobu barab bu ñuy doon mooy yàlla bul ko màggal maanaam barab bu ñu doon rendil ku dul yàlla yow nga ñëw di fa rendil yàlla yaa ngi màggal barab bi bépp barab boo xam ne dañ fay moy yàlla yow amoo droit dem ci barab ba di fa jaamu yàlla ndax da ngay màggal barab bi wa ihyaa'i man darasa fiihi min ashirk da ngaa dem encore di dundal comme dañ ko doon def bàyyi nañ ko yow nga ñëw di dundalaat lool maanaam gars yi dañ fi doon bokkaale bàyyi nañ ko ñëpp dem nañ yow nga ñëw di fa def jaamu yàlla yaa ngi dundalaat loolu bokkaale gi yaa ngi woon nit ñi ne place bi baax na ba léegi mën nañ fee def dara loolu moo tax Omar ibnul Xataab daal di daggoon garab ga bayatu ridwaan ba gaa yi ñëwee di di raay garab gi ñii di dagg reen yi ñii di wittu xob yi ñii di dindi ci xas mi Omar dafa jël jaaseem rek daal di ne dagg leen garab gi ñu gor garab gi yëpp lakk ko loolu moo taxoon ñu suul teen ba jaaro yonent bi duggoon teen ba xam moo taxoon ñu joxe ndigal nañ ko suul ndax nit ña ndox maag nit ña da reyante pour dugg ca teen baag pour barkeelu ca teen ba ndax jaaro yonent bi moo fa wadd Omar ñu joxe ndigal acc nañ fatt teen bi parce que loolu yëpp pour lan pour daw bokkaale su ngeen gisee ñuy islam di tere ku tabax bàmmeel luñ ciy bañ mooy bokkaale moo tax yonent bi sallallahu alayhi wasallam di tere ku ku raay bàmmeel dem di ziyaare ay bàmmeel di ko raay di def sa kanam dañ ko tere ci diine kon ñaareel bi mooy dañuy bañ dundal barab ba ak màggal barab ba ndax barab buñ doon bokkaale la ñetteel mooy adamu taqwiyatil mushrikina ala fi'lihim iza ra'aw man yaf'alu mislahum mu ne bokk na ci ñetteel li tax ñuy tere jullit muy nuru nuru yéeféer yi wala muy ñu tere ko mu dem ci barab buñ doon moye yàlla mu fay jaamu yàlla mooy kon bokkaalekat yi dañuy am dalil gis nga yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy jublu masjidil aqsa yéeféer yi lu ñu wax ah moom mu naan suñu diine baaxul ba pare muy jublu suñu xibla yow bu fekkente ne place bi dañ fi doon mooy yàlla wala ñu fi rendil keneen ku dul yàlla nga ñëw di fi jaamu yàlla ñi ko fi doon def lu ñuy wax ah waa yow place bi nga ñëw di fi def lii lu tax bu ñu la posé question boobu looy tontu kon da ngay ñëw di leen may dalil di leen may dëgg naan leen li ngeen doon def dëgg la bu ñu gisee yow nga ñëw ci seen barab boobu di ko def dañ lay wax la ñu waxoon yonent bi lan lañ waxoon yonent bi yaa ngi naan sunu diina baaxul ba pare ngay jublu sunu xibla boobu yàlla changé gul xibla bi yaa ngi naan yow sa diine ak sunu diine du benn ba pare ngay jublu masjidul aqsa kon kay bu fa jublu yàlla indil ko xibla mook jullit yépp ne leen fa xay suma kuntum fa wallu wujuhakum satrahu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal di tourné boo ajee màkka di nga dem ca jàkka jooju ñu tuddee masjidul xibla tey nii jàkka ji ñaari xibla la am xibla nii ak xibla nii yonent bi dafa julli tisbaar ñaari raaka julli ko nii fi mu rukkoo jibril ñëw ne ko yàlla nee na nga tourné jullu mas masjidul xaram mu daal di tourné jàpp óom yi saxaaba yi tourné topp ko bi mu sëlmalee mu ne saxaaba yi lu tax ngeen tourné gaa yi ne ko yaa tourné ñu tourné ñooñu noonu lañ ko gëmee woon waaye bu doon ñun dañuy bàyyi ba musalmal ñu ne ko yaani ma dalilu ko ala ma faalta waaye yonent bi dafa tourné saxaaba yi tourné ci seeni oom lañ jàpp bu paree ne leen lu tax ngeen tourné ñu ne ko yaa tourné ñu tourné mu ne jibril moo ma ne ñu jublu léegi masjidul aqsa aaya bi daal di wàcc masjidul haram ñeenteel mooy saddul abwaab al muaddiya ila shirk dañuy tëj bunt yi diine ji dafa tëj bépp bunt boo xam ne day indi bokkaale loolu bokk na ci ñu xam li tax ñu tere loolu mooy tëj bépp bunt buy ubbi bokkaale lépp luy indi bokkaale nit ñi waruñu ko def waruñu ko digle waruñu faa dem waruñu faa jaamu yàlla te loolu nag gis nga tey Sénégal bokkaale tasaaroo na fi te dara taxul mooy ubbi yu ñu ubbi ay bunt ku nekk loo neex def loo xalaat def mbir mi rafetlu naa ko mbir mi gis naa ne baax na wala ñoom diw wala baay diw wala sëñ diw fii lay def ñépp di def bokkaale bi di judd ku nekk di def loo neex loolu baaxul mbokk yi ñetteel ci élément dars yi mooy laa wafaa bi nazrin fi maasiyatillah kenn du mottali nazar ci mooy yàlla wala fii ma laa yamliku ibnu adam doo nazar encore ci lu doomu aadama moomul nga naan danga koy def laa yajuuzu du dagan mukk al wafaau bi nazarin bi nazaril maasiya du dagan mukk ngay nazar mooy yàlla kama law nazara an yasbaha lillahi fi makanin yusbaha fihi li gayrillah tey boo nazaroon léegi da ngay dem nga rendil benn place danga fay place boo xam ne dañ fay rendil ku dul yàlla ngay naa dem rendi fa yàlla loolu du dagan loolu du dagan mukk ci àdduna wa an laa yam wa an laa yukallimu axaahu wala nga nazar ne man sama mbokk mi dootuma wax ak yow dootuma wax ak yow loolu li nga nazar dafa haram parce que da ngaa war a wax ak moom ñaari nazar yooyu nit du ko def wala yazuruhu nga ne kii dootuma ko nuyu ci bàyyi naa ko complètement ñaari nazar yooyu yëpp dafa haram kii dootuma wax ak moom kii dootuma ko nuyu ci kii dootuma ko ziyaare ci loolu moom nazar naa ko saye pare naa ci loolu daa haram parce que ziyaare sa mbokkum julit sunna la nuyu sa mbokkum julit sunna la wax ak moom sunna la yow li nga bëgg a def dafa xaram dañ la ko tere xoolal ñun fii da ngay xëy rek nag kii bàyyi naa ko adduna ak àllaaxira bàyyi naa ko adduna bàyyi ko àllaaxira ku la sant lool loolu nga def diina sant la ko diina sant la ko lan la diina sant mooy idfa billati hiya ahsan fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa ka annahu waliyun xamim yàlla bi mu xamee ne lu doy waar dafa metti mu ne wa maa yulaqaaha illa alladina sabaru wa maa yulaqaaha illa zu xazin azim mbokk yi kon du dagan wa kazalika laa wafaa li nazarin fi cheyin laa yamliku ibnu adam amoo droit encore di nazar loo xam ne doomu aadama moomu ko doomu aadama moomul li nga bugg cee nazar loo xam ne yàlla moo ko moom li yàlla moom doo ci nazaral kenn dara waaw ma firi ko idfa mooy del fayonte del defante xam nga nit ñi da ngay dégg mu ne def na ma dama koy def yàlla mu ne déedéet yow del defante idfa del jañ del puus billati hiya ahsan ci loo xam ni moo gën a gën a gën a rafet li paabaa di wax bon gën a bon gën a gën a bon kon dafa am baax gën a baax ak gën a gën a baax yàlla nag gën a gën a baax la wax ngeen def billati hiya ahsan moo gën a gën a gën a baax na nga fayante loolu waa ji bu la romee du la nuyu yow boo ko romee ne ko asalaamaaleykum bu la fekk nga toog du la jox loxo yow jox ko loxo du la nuyu ji yow dee ko nuyu ji sil man qataaka wa ahsin ila man asa ilayk wa qulil xaq wala wala nafsik yonent bi ne jokkal ku la dogg ku la bañ a jox yow jox ko del wax dëgg foo tool mu ne sooy def loolu fa iza allazi baynaka wa baynahu adawa dina dem ba nga xam ne ki nga xam ne dafa noonoo woon ak yow sa digganteeg moom nooneel la fa doxal adawa nooneel dina mujj dem nekk annahu waliyun hamim dina dem ba nekk sa soppe sa soppe lay mujj nekk sa soppe day dem ba bëgg la am na benn boroom xam-xam bu ñuy wax ne dafa am benn waay bu ko bañoon saa yu toogee di jàngale ci jàkka ji rek waa ji dina indi histoire ci jàng bi noonu rek la mel ak moom ndax li muy jàngale moo ko neexul benn bis waa ji feebar tëdd hôpital borom xam-xam bi xam ne kii loxoom jotul ginnaawam mu dem kër waa ji seetiwul waa ji de ndax day bañ seeti ko histoire am demul hôpital seeti waa ji de daa dem kër waa ji nuyu soxna si nuyu njaboot gi nuyu doom yi ne leen ah sa sa borom kër dafa xaw a tawat xam naa ne temps yi moom kër gi fii dund bi dina xaw a doy waar soxna si ne ko uy xamoo ci dara sax borom xam-xam boobu daal di dindi lu takku loo xam ne dina fi mën a nekk ba waa ji wér ñëw mu daal ne ko am ngeen dimbali ko ko waaye nag charte bi mooy bu sa borom kër xam ne man la boo ko nangoo ma jox la ko mu daal ne waaw mu daal koy jox dem ñibbi waa ji yëg ne kër ga kat am na benn waay bu fa ñëw bàyyi na fa xéewal bu bëree bëree bëree bëri bëri doom yi ñëw mu laaj leen doom yi bañ ko ko wax jabar yi ñëw mu laaj ko jabar ji bañ ko ko wax bi mu wéree ba dellu siwaat ci jàkk ji mu ñëw ne waa ji giñ naa ci yàlla yow la yow la yow rek yaa mën a def loolu fi yow la kenn def ko kudul yow waaye nag dinaa bàyyi xuloog yow de waaye nag mënuma laa bëgg ba léegi waaye nag dootuma xuloog yow waaye nag sama xol bi moom mënoo cee dugg ba léegi waaye nag dootuma xuloog yow moom dootuma la indil problème ci jàkka ji xoolal mais quand même waa ji loolu mu def am na am na lu mu wàññi mën na defaat beneen yoon ba waa ji wàññeeku loolu moom mooy xeex loolu mooy xuloo ñun nag fii li ñu yare mooy day dof dof lu defante fayonte mag ñi ba ci ndaw ñi ci biir ba ci biti kilifa yëg tout defante rek fayu loolu baaxul jullit moom warul am lu bon boroom xam-xam boobu ma leen doon wax sànq bi muy jàngal ay taalibeem def leen wax ne mel leen ne garab yéen yéen samay taalibe ñu ne ah mu ne yor leen jikko garab garab boo jëlee xeer boo fekkee garab màngo mu taxaw nga jël xeer dóor ko garab gi garab gi moom lan la lay sànni màngo la lay sànni yow loo ko dóor xeer moom mu daal di jël doomam daal lay may gis nga loo ko jox lu bon moom mu jox la lu baax mu ne yor leen jikko garab garab boo ko dóoree xeer moom li mu gën a riche le li mu gën a baax le moom lay moom lay dagg daal lay jox nga jël maanaam jàngale bu rëy la boroom xam-xam bi doon jàngale foofu kon mbokk yi du dagan ci jullit muy nësëral keneen ci lu yàlla moom muy jox keneen lu yàlla moom kama yaqul lillahi alayya nazara nazarun in shafa in shafa allahu maridi maradi mu ne lillahi alayya nazarun yàlla am na ci man benn yéene in shafa allahu maradi bu fajee sama feebar bi day am na ci man benn yée benn nazar an atasaddaqa bi maali fulaan ma saraxe alalu diw waaw loolu moom doy na waar di yow nga nazar ba pare jël alalu jàmbur dem saraxe ji alalu kan nga war a saraxe sa alal mais nga dee alalu nit dem saraxe ji ah bu ma yàlla defalee dara day dinaa sàcc oto jàmbur bi dem maye dem saraxe ji ko ah ah dëgg-dëgg yow oto bi moom moo ko di loolu ab jullit du ko def kon mbokk yi ci yàlla subhanahu wa taala mu ne inna al waajib ala al muslim li war ci jullit an laa yasbaha lillahi bi makaanin yusbahu fihi li gayrillah bu mu rendil yàlla mukk ci place boo xamante ne dañ fay rendil ku dul yàlla ittibaan loolu nag da koy def ngir topp lima amara bihi sallallahu alayhi wa sallam li yonent bi digle min al bu'di ci sori an mushabahati al mushrikina ci nuroog bokkaalekat yi fi afaalihim ci seeni jëf saddan li baabi shirki daf koy def ngir tëj buntu bokkaale wa ximaayatin li tawxid ak aar tawxid gis nga ñaar dañ ko war a def suñu bopp mooy tëj buntu bokkaale ak aar tawxid di aar buntu kennal yàlla loolu jullit ñëpp ñoo ko war a def tey ji ci Sénégal bu ñu tëjoon buntu bokkaale rek aar tawxid rek dëkk bi yëpp dellu ci jàmm waaye buntu bokkaale la ñu ubbi mbir yi daal di doy waar mbir yi lëndëm kon lii mooy darsu tey bi hadis baa ngi noonu ñu ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu ci dégg ak topp Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Gis nga